moom waaye mbëggeel bi nga am ci moom ah, mu mel ni kon Rachid jamono ji si tànku ñàkk Aliya ci la jëm ah, parce que gis nañ Raphaël ni mu koy gën a jegee de jour en jour ñu jàll ci Aliya moom nag ah, gis nañ ni dafa rek ni muy toppatoowee ki nga xam ni moo di Raphaël dugal ko biir këram xam na ne li mu def du lu baax parce que bu nekkoon lu baax amaanam du bañ Rachid daal di koy gis ba tax na bi Rachid ñëwee def koo rek sorxo sorxoo fexe ba Rachid daal di génn kër gi sous prétexte que ni da koo mere alors xam na ni loolee dara amu ci ndax li mu bëggul rek nag mooy Raphaël ak Rachid daal di gisante ndax su boobaa euh, dina réveiller ay soupçon yu bari ndax nag euh, dara gënul suspect euh, yow ki la bëgg a takk ñëw fekk la ak sa ex sa biir appartement loolu yaakaar na góor bu ci sa xel dal itam sa mbëggeel ëpp na la doole ba gisatoo wala nag mënatoo dégg kon moom Aliya jamono ji nag jaxasoo na ndax xam na ni en tout cas ci li mu nekk nekkul li gën ñu jàll ci Neyla moom nag amaana mu tourner la page ak ki nga xam ni moo nekk ci resto bi di collègue ki nga xam ni moo di Raphaël ndax moom gis nañ ni euh, dafa attentionné te it nag bëgg na ko te nag mi ngi koy woon mbëggeel ndax yaakaar naa nit boo ko bëggee euh, mooy tax ngay xool ay moyens de geste effet lépp loo xam ne def na ko nga ci bàyyi xel bay dem bay xam ay habitude am euh, di xam bu meree li muy def bu kontaanee lu muy def yaakaar naa nit ku la bëggul du la seetlu bay am ci yow seetlu googu ñu jàll ci Raphaël moom nag fexe na ba génn kër gi aloo que Aliya daf ko pour mu génn parce que jàpp na ni wéragul waaye moom Raphaël moom deful loolu ndax jàpp na ni génn la am envie def ba tax na mu def foo gisee ak Kader di waxtaan ak moom waaye Kader dafa choqué wu bi mu xamee ni moog Aliya ñoo dëkk ndax loolu ku nekk rek kenn mënu koo gëm ndax nag nekk na loo xam ni day eh, ñëpp dañuy xam ni li fa mën a xew mooy eh, ñoom ñaar ñu réconcilier wu ba tax na Kader moom it eh, jàpp ni li mu def ak Neyla du lu baax parce que def ko tëddee ba noppi nag daal di daw ay responsabilité maanaam daal di koy wan ginnaaw ndax nee na ki nga xam ni moo di Aysata moom kooku rek lay dem daal koy récupérer te def na ko ñu jàll ci Xalil Xalil nag moom li bëgg mooy yàqal yàqal ko lépp ñëw safa yàqal ko Aliya mi nga xam ni mooy bonheuram ndax ku ne xam na ni Rachid Aliya rek la bëgg euh, jamono ji léppam ci Aliya la ko euh, concentré wu lijjantiwul waajur lijjantiwul frère lijjantiwul leneen euh, waaye nag moom mi nga xam ni moo di Aliya moom mel na ni bëggul kuy wax lu bon ci Rachid parce que gisul loolu ci moom waaye Khalil moom bàyyiwul benn yoon lép lu mën mi ngi koy def dem sax ba naan ko Raphaël moo gën ki nga xam ni moo di Rachid kon yaakaar naa ni moom Aliya war na a ni frère du nekk ci dara euh, ngay euh, ngay jël rek sa frère di ko àtte ñàkkal ñu jàll ci Neyla moom nag mën naa ni dafa ñàkk jom euh, te dara waralu ko lu jur mbëggeel ndax parfois dañu naan mbëggeel day niroo ak ñàkk jom te nag moom loolu la wone ndax ñëwaat na kër Kader malgré li ko Kader def lépp ba noppi nag ñëw di ko réitérer ay sentiment am di ko waxaat mbëggeel bi nga xam ni am na ko ci moom waaye malheureusement pour moom Kader xamal na ko ni day demander en mariage ki nga xam ni moo di Aysata gannaaw bi demoon na ba yaakaar ni moom la Kader di waxal kon yaakaar naa Kader nar na yàq seen diggante moo ko Neyla ci yaakaar naa ay xam ni euh, ba ñoom ñaar seen bëggeel ñu dundal ko ndax moom moo bëggoon Neyla topp ci ginnaawam euh, tey Neyla ko ni ko moom it da ko mës a bëgg kon yaakaar naa seen ay euh, dignité lu ne dañ ko war a tegee ci suuf dund seen bëggeel waaye defuñu ko moom Kader dafa préféré topp kàddoom ñu jàll ci Aliya Aliya nag moom gis nañ ni muy toppatoowee Raphaël jéggi na dayoo mu koy toppatoo bu baax a baax dem sax ma koy toggal euh, ne nag euh, du dem di euh, ci biti que dafa bëgg li Raphaël di lekk nekk lu sell muy loo xam ni yaakaar naa koo bëggul du la ko jaral kon Aliya moom ci boppam war na xam ni xolam Raphaël la ci jamono jooju nag Rachid moom mi ngi nekk di repousser ki nga xam ni moo di Fatma mi nga xam ni da koo bëgg dem sama bëgg koo jox boppam waaye moom Rachid bëgg na moom it Aliya bëgg boo xam ni bëggul sax tromper Aliya mu mel ni kon ku ci nekk rek yaakaar naa ki nga bëgg moom Aliya Raphaël la bëgg Raphaël Aliya la bëgg waaye Rachid moom ñëw bëgg Aliya donte nag Aliya bañu ko waaye nag comme li ñuy wax xol ca njëkk tëcca te nag Raphaël moo njëkk ci xolu Aliya kon mbokk internet yi foofu la ñuy yem ci épisode 23 bu série promesse ma jox leen dig daje épisode waaye laata boobu nag way leen di abonné ci seen série TV te bu leen si cloche de notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf